dikkati naa am na ci réewum Sénégal la woon woon na sut ko di jeexee xamal ma ko turbine yéen a kaay naan moon en tout cas Ousmane Sonko njëkkee na ko ci mbay mi l'enquête naan kon projet moom son ko moom la ñaabar ñaabari bokk daal di ànd ak moom fas yéene ko nag tàmbalee ci mbay mi turbine yéen a kaay naan kon may ma ma ñëw rek campagne bi nga xam ne soobu nañ ci jëm ci séddaleem jiw gi Ousmane Sonko nee na la woon na woon ni ma ni la lagg leen ñi yor kaaraange réew mi di force de défense et de sécurité yi ñoom la ñu jébbal jiw yi ñu fas ko yéene séddale baykat yi ku baykat doo am fa yàllaahu yéen kaayib dee média bi naan maan Sonko ne na ku dul baykat doo laal jarul talal xamle na ni ay milliards la ñu investir ci mbay mi lañ ca doon xaar ma suñu ko am fa yàllaahu Ousmane Sonko ne lu ëpp ñetti téeméer ak fukk ci ay milliards ñu dugal ko ci diggante 2020 ba 2023 ña nga xam ni ñoo war a jot jiwu yi ñoom daanaka dañuy talal rek dara du màbb seen loxo jotuñu dara ñu ko warul séddoo amuñu soxla ak mbay ñooñee ñoo jël nag jiwu yi séddoo ko bayee ko ci seen biir Sonko naan tëri mbaa nga làmb sa kollu ndax fii moom muus ci boppam moo fi dul naaneti ñeer Sud Quotidien naan kon rupture la woote ci rupture am na ci réew mi doore na ko moom Ousmane Sonko ci campagne agricole bi gouvernement gi nga xam ne moom la jiite ña ci mbay mi ci réewum Sénégal campagne 2024 bi moom jaar yoon rek jub kocc ñu jël démb ci conseil interministériel ay dogal yu am solo téeméer ak ñaar fukki milliards ñu def ko ci mbay mi ren ne duñ teyam bor yi nga xam ne yore nañu ko ci campagne 2021 2022 2023 yéen kaay bi naan maan nguur gi ci boppam nee na fas nañ ko yéene fay diggante juróom benn fan jàpp fukki fan ci weeru mai bi waaye dun ca yam dees na saytuwaat campagne agricole yi nga xam ne jaar na fi intrant yi nag ñu joxe ko ci anam woo xam ne xujju lay doon xool ñuy gis leer naa ñi ne jant ña ca am sañ-sañ di ko liggéey moom ko jël ko ña amul sañ-sañ liggéeyuñ ko moomuñu ko du ngeen laal Ousmane Sonko naan dun ca yam dees na identifier ña nga xam ne ñoo doon détourné nag mbir ya teg leen ay daan yoo xam ne dina mitti wala jël mbir yi nag méngale ko ak jamono yéenekaay bi mel ni ku naan tàccu leen loolu rupture waay vox populi naan kon budget record la ñu teg de l'enquête naan kon moomal suñu bopp bay dundee lii daal lañ bëgg sóobu fa yàllaaw te ña ca yoon waa l'observateur naan Ousmane Sonko ma ngay xam leen des na digitaliser nañuy séddale intrant agricole yi ba tax nag lépp mën a am trace sàcc mën caa jógee le quotidien le quotidien naan kon programme 2023 2026 moom nguurug Sénégal de déggoon na ci ak FMI ñetti téeméer yi nga xam ne réserve la te sàll bàyyi ko fi loolee FMI fas yéene weñ loxol nguur gi ngir nag ñu xool courant nees ko yokkee ci réew mi l'observateur naan ko ndonok PSE bi moom la FMI bëgg ñu wéyal ko ci réewum Sénégal ndax bor yi ñu wër daal jéggi na dayoo turbine naan kon xamal la nga xam ni nag moom la FMI digal autorité yu yees yi laas yéene kaay naan kon xam nañ ko di daf ne leen boot leen PSE bi roñ roñeeg moom jëfee ko ci réew mi lu ko mooy du baax 24 heures naan kon en tout cas xel mën na dal ci fi mu ne daal mbayu réewum na geneen yoon yoon woo xam ne nag mooy tax jàppee bay dundee su soi naan kon waxtu waw coow laa nga ca sab ko teeb bi nan ko waaye liggéey liggéeykat ya ci feetu premier mai bi dañoo sargal ba marday taali Souleymane Ndiaye sargal ko ci jëfam sargal ko ci nekkinam sargal ko ci disponibilité am sargal ko ci roñ-roñee gi mu roñ-roñee sab ko fële jëmee ko fële ak tey jii nii fam ko indi riig ko fa yéen kaay bi naan maan feetu travailleurs yi la ñoom travailleurs yi sab ko yi di ko jaaraamal naan kon daanaka ci lëndëm nga nu jëlee tabal nu ci leer fayallaahu moo tax génn nañu taaxuraanal ko sargal ko ko rayal ko teen ci liggéey bu rafet bi turbine yéen kaay naan kon président Diomaye lakk na dëkk bi def na lu fi chef d'état mësta def jël na ab bataaxal yónnee ko taskatu xibaar yi ci bëccëg bi nga xam ne ni ki démb ñi ngi leen ko jagleeloon ci moom seen bopp demal seen cëggal guy yéen kaay bi dee média bi naan maan waxtu woow jàppal ni pati seen lakk na lakk gu metti ba maar day taali amul génn gaañu-gaañu waaye yàqu-yàqu ya bari na lu ëpp juróom ñett ci ay camion yoo xam ne ñoom ñoo ko moom daal dinay lakk yéen kaay bi naan maan moom président Diomaye ma nga woon ca Medina Gounass xam le ni lépp valeur spirituelle ak culturelle la dana ko boot roñ-roñee ak moom jëmale Sénégal ndax bu dul woon ak ñaani Sénégal suuf yéen kaay bi dee naan man téeméer fukk ak juróom ci ay doomu aadama dañ leen jàpp nag ñu doon dem ca Barça wala Barzaq ga ci ñoom bokk na ci ñaar fukk ak juróom benn ay soxna bokk na ci juróom benn xale yoo xam ne Barça la ñu bëggoon dem libération yéen kaay naan man coow li coow li mooy càcc yi nga xam ne mi ngi am ci réew mi te kenn du ŋaang agence nationale bu aménagement du territoire comptable ba fa nekkoon ndekete moo dàq sàcc ñëpp fanweer ak ñett ci ay chèque moom la defaral boppam dem encaissé ko def ci gafaab Cour des comptes ne ko laggal dawal waaxul chèque yi moom la ca encaissé la nga détourné na ñëwaat ci gafaak nguur gi gaaw gaaw keesu nguur gi ma ni la la nga sàcc na fa del si gaaw gaaw libee ñu ko xamal ak lu mën a mbokk ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm